sanctionné yóbbu ko ci zone boobu loolu rek déjà euh, ça dit tout. d'accord dina en tout cas lu ñu gisagum ko euh, foofu noonu. bon mm. maa ngi commencé. alors suba aussi dana nekk journée boo xamante ne dinañ ko dinañ ko fàttaliku muy euh, journée dialogue ci mbirum justice yu bees alors maître est-ce que da nga jàpp ni instant yi mécanisme yi ñu teg en place ak les nouvelles autorités nekk na lu baax pour ñu mën li nga xamante ne mooy mbirum justice bi nga xam ne bokk na ci lu Euh, gàkkal wala sax entaché la euh, magistère Macky Sall waaw xari euh, le problème bi bi am c'est vrai que les trois dernières années je dirais même depuis 2000 deux mille ba 2023 bi li am Sénégal yëpp justice bi moo ko def et donc gis nañ problématique yi nga xam ne justice bi posé na ko Euh, difficulté yoo xam ne euh, sénégalais yi nekk nañ fa je pense que man li ma li ma jàng surtout booy def va et vient di dem bitim réew di ñëw nga xool situation Sénégal da ngay dem ba gis ne sénégalais yi dem nañ ba comprendre seen justice nu muy doxee mhm. c'est-à-dire da ngay dégg ñu naan la ku ma am ndey ku ma amul ndey et euh, même les langages juridiques langage juridique bi sax dem nañ ba comprendre ko mhm. mandat de dépôt retour de parquet yooyu yëpp da ngay gis ne effectivement Euh, dem nañ ba miin ko. miin seen justice défaillance bi nga xam ne moo am. alors bu les nouvelles autorités ñëwee loolu bokkoon na ci seen engagement parce que ñoom ces autorités ont été xam nga de déra di dérapage je dirais judiciaire Et euh, donc ñoom buñ ko vivre ci seen bopp ñëw ne dañ ci indi saafara dañ koy rafetlu alors maintenant. ni nga koy àndee aussi day interpeller c'est-à-dire saafara. problème pose poser leen problème bi nit ñi ñu interpeller et tout ñu bari ñu ngi décrier les invitations. effectivement ak nga ca bokk est-ce que bokk nga ci wax ni euh, yoon bu ñu jël nii c'est pas la bonne maanaam timing du 28 au 4. en fait mun man man je ne suis pas d'accord sur le fait que en quatre jours je ne pense pas qu'en quatre jours on peut régler le problème de la justice sénégalaise. Mmh. je pense que là c'est vraiment ils sont optimistes. <laughs> alors que euh, li ñu waroon a def d'abord man li may xam ci ay réformes judiciaires su suivre ko participer ci en tant que euh, membre d'un syndicat des avocats en France mooy d'abord da ngay am commission boo xam ne président mooy mooy désigner benn personnalité daal di koy wax ak moom confier ko benn mission commission ñu créer commission pour justement parler de la des réformes de la justice. ñoom la ñu bénéficier facilitateur. ou un facilitateur en fait gis nga kooku mooy ñëw d'abord identifier les problèmes euh, consulter les gens qu'il faut consulter parce que justice quand même <laughs> du du n'importe qui la ñu war a consulter c'est-à-dire nekk folklore ñu ñëw rek comme li ma gisoon ci euh, les assises euh, ou bien le débat national yi nga xam ne amoon na fi ñu créer benn journée tout le monde vient prend prend prend la parole et puis ñuy wax kenn xamul li ñuy wax. tu penses que dafa am ñu ñu invité ñoo xam ne pas leur place. man man man ci dialogue bi euh, man man man personnellement je l'ai décrié sama page euh, Facebook am na ñoo xam ne pour man amuñu droit nekk foofu. ñan ak ñan ñooñu les anciens ministres de la justice ñoom tey bu fekkee ne justice sénégalais nërmeelu na nii ba tollu fii. ñoom dañ ci dugal seen loxo. ancien ministre ci magistère Macky Sall wala depuis Wade ci magistère Macky Sall surtout ñi nga xam ne mais ci magistère Macky Sall c'est flagrant. c'est flagrant man fii laa mos a nekk gis ay ministre ministre de la justice mu taxaw euh, télévision internationale eh, télévision internationale télévision européenne interviewé ko muy dal ci ay concitoyens loolu mosuma ko gis fenn di di interpréter ay décisions yoo xam ne génnagul hmm. di joxe ay décisions mais obligation de réserve ci ministre de la justice fan la nekk cest à que ma ya ma maay maay ministre de la justice je fais ce que je veux c'est ça que ça voulait dire loolu wax dëgg yàlla dafa nekk yoo xam ne c'est révolu dañ ko war a bàyyi. alors ci magistère Macky Sall les trois derniers ministres muy Malick sa Aïssata Tall Sall Ismaïla Madior Fall ñëpp dañoo wax ne dañoo bokk ñu gën a suuxal euh, la justice sénégalaise mais est-ce que duñu comprendre c'est dans une souci euh, cohésion looloo tax ñu invité leen est-ce que looloo tax non non c'est c'est incohérent parce que euh, man bu may bu may ut cohésion ñooñu dafa war a am une commission d'enquête boo xam ne dañ leen war a interroger ñoom. Ah ci seen jëfin effectivement. parce que ñoom seen wàllu bopp mais gis ngeen leen ni ñu doon comporté wu avec la justice sénégalaise c'est-à-dire que ñoom foogoon nañ ne justice bi ñoo ko moomoon lu leen neex la ñuy def loolu dama defe ne ñoom amuñu droit sax dem toog foofu man. d'ailleurs je ne sais pas comment comment euh, la liste a été confectionnée naka lañ def ba. ba ñoom liste boobu noonu euh, c'était juste sur la base de li ci lañ doon liggéey maanaam. mais suite la boo xam ne dégagé nañ ci seen responsabilité. mais fekk moom bu muy wax nii c'est confirmé ils sont invités. oui non après man man man c'est ça mon problème c'est-à-dire que lu toll toll assise de la justice nga gis ñoo xam ne ñoo ñoo andi problème yëpp pratiquement. Hmm. nga ne ñooñu da nga leen di woo ñu toog pour wax ak ñan yow sa crédibilité assise bi fan lay nekk. ba pare invité walla ay anciens détenus yoo xam ne ñoom ñoo leen tëjlu. mais c'est extraordinaire non moi je pense que. détenu yi nag pour yow waroon nañoo dem ancien détenu yi. mais ancien am na ñoo xam ne par exemple ñenn ñi ñi ngi nit ñi ñi ngi posé wuy question ci seen présence foofu noonu. Euh, xëy na ci beneen wàll bi gis nañu euh, ñu am am ñu ciy cité par exemple ku mel ni Clédor Sène ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen ci cité ñenn ñi ne lu tax woowuñu leen. waaw mais xam nga gis nañ ne waa Yewwi ne ñoom euh, voilà. booy fa baax bu yëkkal Clédor Sène bénéficie. bénéficie de la loi aisance foofu laa doon jëm c'est-à-dire que par moment euh, yenn rancœur yi day ñëw ba nga xam ne dañuy fàtte lu bëri parce que quand même Clédor quoi qu'on puisse dafa bénéficier d'une loi d'amnistie donc waratuñ sax nekk di wax ci affaire boobu donc moom bu ñu ko invité c'est en qualité peut-être enfin d'ancien détenu de son expéri de son expérience d'incarcéra de, de quelqu'un qui oui. est incarcéré mm. d'un détenu et qui connaît effectivement les conditions de détention mm. et euh, nit bu rey nit <laughs> mën nañ ko interroger parce que xam nga euh, le fait le fait de tuer quelqu'un du tax la personnalité l'homme en quelque chose li nekk ci nit ki mu war a deñ hmm. donc am na yenn moo tax ma ne moo tax ma ne gis nga fii justice bi euh, dimension humaine da koy fàtte Sénégal c'est extrêmement important parce que gis nga bu axe de réflexion yi nga xam ne effectivement dinañ ko def xëy na mooy euh, euh, au niveau pénitentiaire mooy les détenus kaso yi war nañ xool naka lañuy ñuy def kaso yi nag boo ko waxee da ngay dem ci ñi leen fa dugal hmm. boo wax boo boo demee ci ñi leen fa dugal mooy les magistrats magistrats yi ñoom dañu war a xool aussi dans leur formation naka la ñuy def ba bu ñu leen di former ñi dem ñu ñu ubbil leen euh, les maisons d'arrêt ñu xool les conditions d'incarcération hmm. parce que yow mënoo toog sa bureau rek mandat de dépôt mandat de dépôt mandat de dépôt te yow xamoo naka la ces ces ces ces gens la vivent dans cette situation là. loolu mooy problématique bi c'est-à-dire que man assisté naa plusieurs fois fii euh, au niveau de la justice sénégalaise lu gën a simple mooy les présentations du parquet euh, mooy bu fekkee ne euh, jàpp nañ nit place ko garde à vue après da nga koy yóbbu présente ko euh, procureur de la République mais. boo gisee présentation parquet c'est extraordinaire mais ay da ngay gis procureur ñëw taxaw ñoom ñëpp ñu taxaw nii ñu nekk ñu nekk ci ci ci ci CAF bi procureur daal di lire les les les, les, charges. les charges contre contre alors que <laughs> l'instruction est censée être <laughs> parce que que parce que aussi si volet juridique bi on n'a pas problème de personnel. Mais se pose aussi. on n'a pas assez, assez de procureurs, on n'a pas assez d'avocats, on n'a pas assez de. Pas assez problème de personnel aussi, on n'a pas assez de procureurs, on n'a pas assez d'avocats. De, de Mais, ce qu'il y a, mais loolu pour man warul tax li nga xam ne mooy ak ak nit. ñu koy salfaañ. mais bien sûr ça justifie pas ça le justifie pas. lañ bëgg a toog mm-hmm. par exemple le fait que mu nekk benn système boo xam ne euh, xëy na bu fa maître Dabo toogoon wala Khalisila wala Ayoba wala Issa bu amul tuuti lu mu ciy xalaat rek mën na ko defee la même chose parce que amul dara lu koy téye mooy parke bi. ni mu info au au ministère de la justice ministère de la justice ñëpp xam nañ kan moo ko fal euh, parquet bi aussi des fois na lool lu ko neex mu def euh, euh, daanaka yoo xam ne juste da koy convoqué rek directement kaso nga nañ la bàyyi nga def demande de mise en liberté provisoire il am na ñu ñu bàyyi sax jàppaat leen. maanaam ñu accordé defaat appel ñu téewaat leen. téewaat leen mais loolu lañ bëgg dog définitivement. waaw en fait mooy mooy mooy ce que j'appelle peut-être euh, une bon réforme sectorielle parce que quand même euh, la procédure pénal benn secteur la ci justice. Ouais. donc kooku tey bu ñu waxee problème justice procédure pénale droit pénal